mbokk yi niñ koy defee rek ci di bokk di nafaraat ak bokk di fàttaliku ndax fàttali day doon lu am dafa doon lu am solo lool ci ab ci doomu aadama ndax comme doomu aadama dañ koo andi fii ci àdduna mu war a defal àdduna mu war a defar àllaaxiram te waxuñ ko ñaata ban temps la fiy dund wala lan la fi war a jeexal ngir def loolu dañ ko wax rek ne ko def ko xamal ko itam ne ko loo ca def nag lu mu tuuti tuuti danaa la ko fay muy fa man yaamal misqaala darratin xayran yara wa man yaamal misqaala darratin charran yara mu mel ni kon nag dana jaadu ci doomu aadama waxtu wu nekk ñu di ko comme xamut li nga xam ne moom la fi war a def ci ci ci dundam ñaata waxtu la fi war a def wala ñaata weer la war a def wala ñaata at la war a def xamu ci xamul nu mu toll te da ko war a def defar ci addunaam ji defar ci àllaaxiram ëllëg kon dana wa dana jaadu waxtu wu nekk ñu di ko gën di fàttali mu muy gën a fàttaliku ab taxawaayam di gën a fàttaliku li ko war di gën a fàttaliku li nga xam ne moom la war a moom la war a jëf ci àdduna si loola nag tax na fàttaliku doon lu am solo mu mel ni nag ginnaaw fan yu néew danañ dugg ci weer wu tedd weer wu màgg loola mooy weeru koor te xam nañ ne koor weer la woo xam ne léppam yiw la léppam itam yërmande suñ borom la léppam li itam njëggale njëggale suñ borom la doo muy doon weer woo xam ne nag yonent suñ borom moo ko terale xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax dañuy da masoon di mett li ne am na koo xam ne dafa dund juróom-ñett fukki at yoo xam ne yëpp da ko daa jaamu yàlla bam bam da ko daa jaamu yàlla te xam nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa xam le ne ne xeetam moom seenu dund gudd gudd lool ndax suñ ndax wax na ne kat képp koo xam ne suñ borom xéewale na li ci juróom-benn fukki at rek ndax da xam ne ci ci xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da nga xam ne wecc wàccoo na ak yow kon mu mel ni kon seen dund gàtt na lool loola nag tax liñ ci war a def kon ci ak jaamu yàlla te bu ëllëgee yonente bi sallallahu alayhi wa bëgg naa wone pookari wu aw xeetam te xam na ne liñ fi dana dund ci def ko ci jaamu yàlla gàtt na loola nag tax ñaan suñu boroom xéewalee ko may ko aw weer woo xam ne genn guddi képp ma nga ca weer wa bokk waxuñ nag la la aju ca weer képp lépp waaye am na ci genn guddi rek ci weer wi goo xam ne moo kawee juróom-ñett moom yu tegal kon mu mel ni kon ku dund rek daanaka ñetti weer maanaam ñetti at wala fanweeri at yoo xam ne def nga ko yaa ngi ko yaa ngi taxawe ni nga ni nga xam ne ni nga war a taxawee ci weeru koor di ci def li nga ci war a def rawatina ci guddi googu nga xam ne moom la suñu borom terale xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam day mel ni kon lu waaye gudd gudd am ay at ak lu mu bari bari le dootu la ëppale léegi ndax def nga ndax genn guddi rek am nga ci genn guddi goo xam ne tolloo na ak juróom-ñett fukki at loola kon mu doon kon nu weer woo xam ne suñ borom moo ko farataal ci ñun ñu war ko weer woor waaye nag ba mu koy farataal ci ñun itam mel na ni bëgg na ñëw bëgg na mu woyof ci ñun ndax lan lan nan la bëggee mu woyof ci ñun mooy da koo tàmbalee ci xamal ne kat yéen ñii nga xam ne yéen laa bëgg a farataal ci weeru koor wi muy yéen jullit ñi di xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ngeen xam ne koor kat doonul ne yéen laa ko beral waaye ab ña leen jiitu woon itam dañu daa woor kon nag bu ma waralee ci yéen koor yaakaar daan war naa woyof ci yéen ndax da ngeen xam ne am na ñeneen ñoo xam ne itam ñoo ngi ko daa taxawee kon mu doon koor nag doon jëf joo xam ne ju màgg a màgg jëf ju rëy rëy la ndax lañuy la ñuy won ne jëf ju rëy la jëf ju màgg la moo dina mooy jënn jëf ji yoo xam ne doomu aadama da ko defal suñu borom te suñ borom xam le ne jëf jii kat man maa ko moomal sama bopp kon mu mel ni doomu aadama moom suñ borom koor da koy def waaye bu ko defee suñ borom moom koor gi moom moo ko ci moo ko ci fay te xam nañ ne suñ borom wax xam le na ne boo ko defalee benn mu fay la fukk mën na ko gën a kawe sax kon loola di ñu xamal ne kon koor lu rëy rëy la ndax suñ borom moom rek mooy jënd jëf joo xam ne suñ borom xamle na ne kii jëf kat man maa ko moomal sama bopp. bokk na ci itam li ñuy won ne koor lu am solo la ne bokk na ci koor bokk na ci yi nga xam ne dañuy far ay bakkaar loola nag li ñu ko won mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dafa xamle ne julli juróom ku koy taxawee ku ne ak ju ajjuma ju ne itam nga fas yéene koo taxawee. boole kooku itam di woor woor koor maanaam lépp loo xam ne defoon nga ko diggante julli juróom gi julli julli gu njëkk ji ba ci ñaareel bi ci ay bàkkaar suñu borom dana la ko jéggal nga ca toppaat itam noonu nga ca toppaat noonu boo taxawee itam ajjuma bis bi nga ko taxawee ajjuma ji bu delsi ba ba muy delsiwaat loo fi def ci ay bàkkaar itam suñu borom dana la ko jéggal bu fekkee ne yaa ngi góorgóorlu ba bàkkaar yu mag yi nga xam ne suñu borom da cee tëkku wax ne képp ku ko defkat kat da nga am looy daje danga am looy dajal ci ak mbugal bu fekkee ne yaa ngi fexe bay fer ba sori bakkaar yu mag yooyee bakkaar yu ndaw yi nga xam ne mu ngay defaat nag boo jullee ajjuma ba ajjuma ji dellusiwaat ci bakkaar bu ndaw boo fi def suñu borom dana la ko jéggal boo wooree weeru koor wi itam ba keroog weeru koor wa di dellusiwaat nga wooraat ko lépp loo xam ne def nga ko ci ay bakkaar yu ndaw suñu borom dana la ko jéggal kon loolu du ñu woon koor ni nga xam ni la amee solo ñaareel ba itam moo di ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danañu xamal koor day bokk na ci liy ràmmu doomu aadama ndax bu ëllëgee lan lay koor di wax buy ràmmu doomu aadama day wax ne kii kat bëccëg maatee woon mu lekk la nga xam ne moom la bëggoon a lekk maatee woon mu naan la mu bëggoon a naan maatee woon itam mu bànneexu na mu bëggoon a bànneexoo kon yow suñ borom tiit ma ci nee na bu ko defee itam alxuraan ji nga xam ne moom ngay jàng ci biir koor gi rawatina ci guddi gi moom itam da lay tinu ndax day wax suñ borom ne kii kat maa ko woon a nelaw ndax man la doon jàng kon nag tin ma ci bu ko defee nee na yonent bi sallallahu alayhi nee na mu boobaa ñaar ñaari ñoo ñuy di tinu doomu adama suñ borom dana leen tin ci li nga xam ne moom lañ ko tinu loolu nag ba tey am na luñ ci mën a jàngate mooy ndegam doomu jëfi doomu aadama rek mën naa ramu mën naa ramu doomu aadama kon doomu aadama mooy jëf nag yaakaar naa ne buñ nee mën naa ramu war naa mën a war naa mën a nekk lu lu lu nekk lu lu wér kon yaakaar naa loolu danañ ko ci dégg xam ne comme jëfi yi doomu aadama mën naa ramu doomu aadama rawatina doomu aadama jay jëf jëf ci jay jëf jëf kon ñaareel bokk na ci li nga xam ne itam moo nuy war ne koor am solo la moo dina am na benn bunt boo xam ne ma nga ca aj maanaam bu yobal xiyaamee suñu borom da koy ubbi bunt boobee nag kenn du ci dugg ku dul ñi nga xam ne ñoo daa woor yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamal ne nu àjjana day am na fa bunt boo xam ne kenn ban bunt ba ñu ngi koy tudde rayaan nee na bunt boobee day amul kenn ku ciy dugg ñu dut ji nga xam ne ñooy ñooy woorkat yi nee na bu boobee danañu woote ne ana ñi daa woor buñ ñëwee ñu ubbi bunt bi ñuy dugg saa bu jeexee tàkk nag ñu tëj bunt ba kon loola mu mel ni buñ ko doon wax ci jamonoy jamonoy jamono jii wala ñu ñu di ko misaal ci tolluwaay dundu àdduna dafa mel ni kon woorkat yi suñu borom dana leen defal réception spéciale boo xam ne da leen koy defal ci bis ci àjjana bu ëllëgee loolu itam di ñu woon kon lu am solo la ñetteem leneen li ñu wanaat itam koor ne lu am solo la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa xam le am na yoo xam ne day ñooy cosaani diine ñooy fondement yi diine nga xam ne képp koo xam ne yaa ngi koy taxawee na nga xam ne yaa ngi taxawee diine waaye booy benn boo ci bàyyi itam na nga xam ne jën jënd nga ci diine yooya nag mooy bi ci njëkk mooy baat bi nga xam ne moom la doomu aadama di wax ngir dugg ci lislaam loolu boobu baat kenn mënu koo ñàkk wax faw da nga ko wax am ay seere yu lee seere waaye doo toog sa kër rek ba mu neex la wala nga toog fa sa ban barab rek daan ne tuub naa te amoo ci benn seere loolu suñ borom nangu ko faw dangay am seere ci ba ngay ba ngay ba ngay dugg ci lislaam ñaareel ba itam da julli juróom moom itam bokk na ci li nga xam ne fondement yi lislaam lay nga xam ne suñu borom moo le ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañu ne bokk na ci fondement yi nga xam ne boo ko bàyyee kat moom it day mel ni da ngaa génn ci diine nee na ñetteel ba itam mooy weer woor weer weeru koor nee weer yooyu ñett yii muy déclaré ne ab jullit ak taxawee julli juróom ak weer weeru nee na yii ñetti fondement lañ yoo xam ne képp koo xam ne yaa ngi koy taxawee nañ danañ muneesu laa ñàkk boole ci lislaam ndax xam nañ ne ci nga bokk képp koo xam ne yaa ngi koy sàgganee benn ci ñoom itam na nga xam ne jàpp ne na nga war a taxawee ci lislaam yaa ngi cee taxawee ni nga ci war a taxawee bokk na itam ci li ñuy won ne koor lu am solo la moo di ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañoo xamal ne bu aj bu ël maanaam su saa yu koor ñëwee dañ ci ubbi bunti àjjana tëj ci bunti sawara loola nag li muy li ñu ko mën a war a waxee mooy weeru koor weer la woo xam ne suñ borom dañu cee xiirtal ci jëf lu baax nga xam ne kon day mel ni kon lu baax rek moo ci war a nekk lépp loo xam ne lu doon la ab safaan itam waru cee nekk ñaareel ndale ci lañ lañ ca tegaat itam mooy la nga xam ne moo la daa xiirtal ci def ab safaan suñ borom bu boobee doo bu duggee weeru koor da koy néewal doole ba lam daa man ci di la jaaraloo fa wërta jaar du ko man ni mu ko bëggee kon ne ne ba nopp itam ne weeru koor woowu kat am na ci guddi goo xam ne moo gën junniy weer nee na nag képp koo xam ne fexe nga bañ ba ji maanaam yiw wu nga xam ne moom la suñu borom def ci guddi googu nga fexe ba taxawoo ci taxawoo ci ni nga war taxawee na xam ne xañ nañ la aw yiw wu rëy rëy ndax bu ël ndax kat saa yu koor duggee dafa am malaayika moo xam ne day woote day wax ne yéen ji nga xam ne day lu baax rek leen taxoon a jug. bég leen ndax yéen a ngi ci weer wu tedd yéen a ngi ci weer woo xam ne jëf ju jëf ci lu baax tolloowut ak jëf ko ci weneen weer yéen yi nga xam ne nag xëy na da daa dox ci safaan itam li rikk li gën a tuuti mooy na ngeen fexe ba tey seen tànk ba du ngeen doxati ca loola ba weer wi ba weer wi jàll kon loolu lépp di ñu am solo weeru koor di ñu woon itam xéewal yi nga xam ne mu la ci suñu borom dëxën du ñuy wa ak ci te dëxëñal ko xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñ borom bi nga xam ne nag mooy borom kàttan te mooy borom man te mooy ki nga xam ne itam moo mën a dimbalee yàlla nañu dimbalee bañ am kàttanu man ko woor ni ni mu ko bëggee te dimbalee nu buñ ko wooree itam mu nangul nu ko te fay na ci lu kawe suñ jot loolu suñ borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañ ko defal delluwaat yi tàllal suñuy loxo tamit ñaan suñu borom lii nga xam ne moo nekk ci àdduna si te sonal ñëpp te kenn ñun ñëpp xam nañ ne am nañ suñuy pexe mënu ci dara moom rek moo ci mën dara yàlla nañu dimbaleel boppam ci dara ji weeru koor wi nga xam ni moom lañu jublu si ba li nga xam ñi nga xam ne dal na leen suñu borom wéral leen ñoom dalagul suñu borom musal leen ñi teggi ko itam ci àdduna si bu jeex fi tàkk loolu suñu borom mën na ko jàpp noo ko yàlla nañ ko defal ñu tellu laat ñuy loxo itam di ñaan suñu borom moom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy borom man te mooy borom sañ-sañ Cheikh mun Mountakha bii nga xam ne moo fi nekkal sa Touba te kenn ku ne xam na ab taxawaayam wala kenn ku ne mën ngaa seere wala gis nga ne xam nga ab taxawaayam ci fonk diine ak dimbali doomu aadama wala tax wala jox ak xam jox jox ak doomu aadama ak bàyyi ko xel lool kenn ku ne mën na koo seere loolu nag koon yàlla na ko suñu borom gën a kàttanal gën koo mën ay may ko ak wér. gën koo may ak tal ba li nga xam ne yéene na ko ci mu def ko ci da def def ko du kawe njattam te ñu ànd ko moom te daje ci ngërëm moom suñu borom képp koo xam ne itam lislaam moo la tax a jug yàlla na la suñu borom taxawal yàlla na suñu borom dëgëral ba la nga yéene nga def ko te defe ko nu kawe sa njot te ànd ko ña ña ko war a àndal te daje ci ngërëm suñu borom loolu suñu borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañ ko defal rabbana innana naa munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna